mais démb ma gis kii di Eumeu Sène dugg si ci stade bi waa géej waaye yuux ko sànni ko ay ndox saaga ko mu bàkku roof leen caxabal bi diggante Balla Gaye ak Eumeu Sène. waaye kooku di ndaanaan Eumeu Eumeu boo ko bañee bañ ndaanaan bi muy affronté Bombardier ñëpp ne du si jëlee dara si defet la jóge mu affronté Bombardier jël fay ku wàcce ko daan ko si lu leer bi muy jëlaat Balla Gaye ñëpp ne Balla Gaye koy daan moom Eumeu mu ñëw dëggal boppam Balla teg gauche mu teg droite. te eh, combat boobu Balla def na ko boo jëlee xam naa sama tànk yi nga jëm waaye boo ci duggee ma mboot la mu ne ko ba ma mbootee jeexal la. boo ma mbootee dootoo mboot te ba mu ko mbootee xoolal loxo bi la def nii gisee ko comme genre jaar affaire bi rës si ginnaawam la ko féete ñaari yoon la ko soññu ko sa waay mooy yoon noonu la combat bi demee. mais Balla ak Eumeu naka nga xalaat ne noonu la Balla mën a bëre ak Eumeu mën cee génn. si combat bi dem entraîner ñëw ko école contact Balla bu contactee wér Balla mu yow baala mi nga doon xam ak baala bi est benn la nañ waxante dëgg rek baala yi ngeen doon xam ak baala bi benn la kon ña ko defaroon ak ñi koy defar nii est-ce que bokk nañ baala na xool ña ko defaroon mu xool sax gis nga ni nga doon def di gagné di gagné ba ñëpp xam la boo xamul noo jëm da ngay delluwaat fa nga jóge woon. mais ñu ci bàyyi ñooy naan euh, waaye juróom mi wàññeeku est-ce que amul lu mu lu mu manqué ci Balla Gaye. waaye am na lu mu manqué gis nga kilifa kilifa la mais du moom dong la mu waajuram wàññeeku ndax am déet am na ñeneen ñoo seen waajur wàññeeku nañ te ñu ngi liggéey seen i liggéey yàlla mooy dogal loolu waajuram li mu dund dund na ko neex na fekk nañ njariñu doomam jëndal nañ ko oto jëndal nañ ko leneen am na ñoo xam ne dañoo judd gisuñu seen yaay gisuñu seen papa bu xoolee si ñooñ day muñ parce que lépp lu la yàlla teg da nga koy muñ loolu nañ koy kulus ne te xam ne kee dem na ba pare nañ ko ñaanal jàmmam mais Balla moo war a xool lan moo koy arrangé mu def ko bu dee bàyyi ngemb moo arrangé ñun ñu toog si victoire yooyu mais ay ay ay éliminé yoo xamante ni gars xoola lii nii bu dee noonu lay jeexale mu teel a bàyyi moo koy gën waaw mu am palmarès bu rafet ñun bu may werante mën a werante du rafet mais léegi damay werante ba si yaa gaay ne ma yow mu revanche moom mënoo ko. te nag Balla Gaye li ma ci gën a jaaxal mooy revanche yi mu jël yëpp da koo ñàkk. benn revanche la gañe muy contre euh, Issa Pouye à part Issa Pouye ban la gañe te te yee muy jëli ne revanche ak fawaat Eumeu Sène bu ko daanee trois fois fu ñu jëm lii mu wone nii est ce que daan na Eumeu xamaguñ de. Eumeu Sène daan Bombardier ji barki de moo Ndiaye. daan Balla Gaye ñaari yoon bu ko daanee ñetti yoon ñun Guédiawaye fu ñu jëm. Modou Lo nag lal na basang Pikine waaye tey la basang kay laalee ko wala mu bën ndax borom bitigu mbagg boo xotti dënn ba magasin nga fay fekk xale màgg na mbiskit du dem si soos waaye mburu ñaar lay bañ ama bu takkee jóg cim kontaan naa waaw yow